waaw euh, jërëjëf ñu ngi di ñu ngi leen di di nuyu di leen euh, remercier ci seen teewaay bi euh, ci conférence de presse bi dañu bëggoon wax ak postier yi wax ak ak askan wi ci situation poste bi e donc depuis bi ñu ñëwee depuis bi ñu nommé au mois d'avril 2019 ñu ngi ci liggéey bi donc euh, xam nañu euh, liggéey euh, fii si poste depuis président de la république bi ñu confier la gestion de la poste ñu ngi waxtaan diisoo surtout ak postiers yi ba tenk liggéey si plan stratégique liggéey si vision liggéey si ay instruments yu bari loolu yëpp dañ ko def dans un cadre consensuel Euh, xam nañ nag euh, poste am na jafe-jafe liggéeykat yi aussi léeg-léeg dañuy yàkkamti am résultat parce que dañu gis ne chaque année euh, ñu ngi am ay pertes liñ doon am amandu ko parce que ñoom ñoo nekk si guichet yi dañuy xam ne exactement aussi situation bi donc frustration bi daanaka bëri na mais loolu yëpp on peut comprendre sax xel mun na ko nangu mais li ñu mënul euh, comprendre li ñu mënul nangu que malgré loolu chaque jour am na ay manifestation am na ñiiroo am na ŋaayoo am na vraiment heure bi ñun ñëpp waruñu ko tal parce que euh, sooy xeex ci euh, mbir bi nga xam ne yow doo danga ciy perte ki nga jàkkaarloo de ciy perte suñu entreprise da ciy perte yow loolu ana sa gain ana njëriñ xeex boobu parce que même suñ doon xeex pour euh, d'ailleurs peut-être moo tax duñ si xeex pour améliorer suñu condition de travail heure bi daanaka poste mënul def dara dara dara dara parce que euh, dañu suux on est au fond état bi moo ñu jàppale moo ñuy dimbale pour ñu génn si moo ñuy accompagner moo tax ñoom ñun ñëpp d'ailleurs bi ñu bi ñu waree boolee suñu doolee syndicats yi ak ñun pour état bi fay ñu suñu bor <laughs> les gens l'ont fait parce que dañu am ne sinon duñu fay sax salaire yi donc si loolu la ñu war a taxawee ñu jàppale direction générale ñu liggéey pour relever suñu entreprise sinon le reste c'est peine perdue amul solo amul benn avantage donc en tout cas li ma bëgg a wax que man champion transparence man xam naa ni su ma fi jóge maa ngi peut-être sama milieu carrière donc dafa am li nga xam ne du ko def pour kenn donc principe yooyu pour man principe yu am solo la sacro-saint si wàllu transparence d'ailleurs li ñu liggéey si si wàllu marché réforme yu ñuy def euh, ñu ngi koy saluer donc du ñu ñëwaat si détails yi euh, maanaam euh, donc lépp lu accusation yi ñu fi def xam na rek c'est voilà c'est parfois des combats de personne combat yi nga xam ne c'est combat subjectif la amul firnde donc si wàllu Euh, problème euh, euh, problème post finance problème d'abord directeur bi bi ñu dàq dañu ko lié ak problème un virgule cinq milliard ma wax leen que poste entreprise bi nga xam ne ñaari filiale la am filiale EMS filiale post finance ñu nekk suma responsabilité en tant que directeur général donc ñooñu yëpp je suis le seul répondant devant la justice tous les jours chaque jour dañuy envoyé ay inspections dans l'année ren rek ren dañu envoyé plus de deux cent cinquante inspections te chaque année problème détournement day am poste lu ñu ñaawlu la d'ailleurs chaque année da ci day am benn ñaar ñett parfois plus ren nag bi ñu découvrir les 1,5 milliard je rappelle que man envoyé na inspection centre ma envoyé inspection aussi centre financier donc am nga 1,5 milliard dafa bëri bi nga xam ne pro chaque jour ñu ngi wax amuñu xaalis ñu découvrir loolu sa peut voilà ñëpp mun nañu jaaxle mais situation bi mooy que pratique boobu tant que amoon nañu xaalis. nit ñi mënoon nañu fermer les yeux par situation bi dafa yàgg dañu doon jël sur eux ñu lebal xaalis ay travailleurs ay fournisseurs dañu def avance ñooñu suñ jotee seen salaire wala seen chèque ñu remboursé donc situation bi ñu toléré ko ba euh, cet année ñu ne basta c'est fini parce que ñun ñëpp constaté nañu que dañu am problème euh, xaalis donc nañu gérer de façon responsable affaire bi donc loolu jotewul dara ak fonctionnement entreprise bi tous les jours on change de directeur ça c'est récurrent on change souvent en fonction vraiment des objectifs et en fonction des niveaux de collaboration parce nga ki ngay liggéeyal aussi da ngeen di war a déggoo su ngeen déggantewul moom déggoo ko tinoo ko euh, faale woo ko mais du ngeen avancé ñi mën a ànd nañu ànd puisque y a tout le monde est compétent ñoom ñëpp benn école la ñu génn kon dañuy jàpp ñoom ñëpp compétent nañu soo mënul ànd ak kii liggéey ak kii nga jël moromam ngeen liggéey bu ngeen seen kii bi su nekkee benn ngeen ànd liggéey loolu vraiment amul si amul luñ ci war a coow su dul bugg coow rek. mais li ñu loolu wax naa loolu du mot moo ko découvrir c'est le système moo koy découvrir donc du du lool rek loolu. c'est des contrôles de routine, c'est des inspections, nous que découvrir. Mais ce n'est pas parce qu'on a découvert ça que le, le changement ne s'opère pas, que l'activité que d'une côte def. Hein? Ah. Donc c'est des actes de gestion qui se font tous les jours. Donc ce n'est pas lié ni de près ni de loin. Wax naa man li ma soxal mooy su ma fiy jógee fekk man retraité wu man xam naa loolu su ma fiy jógee retraité wu ma donc bëgg ma yóbbaale euh, dans d'autres endroits wala feneen euh, ay der yàqu. loolu loolu sanction yi ku jël xaalis poste mooy ki ki ki fiy liggéey travailleur yi mooy fournisseur ñoom ñëpp dañ nañu fay jusqu'au dernier centime loolu c'est un principe loolu kenn du ko mun a déroger nii man tey nii directeur bi fi ñëw suba nii directeur yi fi passé et donc parce que loolu c'est de l'argent public donc loolu jarul coow surtout léegi dossier bi c'est mu ngi justice kay ñun ñëpp dañu war a wóolu justice ñu ñëwaat toog liggéey dal c'est à cela qu'on appelle vraiment loolu la ñuy woote. monsieur le directeur bi ngay tàmbali say kàddu kër gi di poste dafa suux kër nag buy suux mi gaal xëy na borom gaal da dina jéem a jël ay pexe ñu gis ne bi ngeen demee ci assemblée nationale ci vote budget bi sax am na benn député boo xam ne jot na laa digal yenn ci ay jéego yi ngeen war a def bokk na ci dugal xale yi nga xam ne ñoom yëngu ci wàllu càkkat bi ngir que poste mën a yor yeneen prof ndol yoo xam ne dina ci mën dugalee koppar waaye tamit fexe ba moderniser ko maanaam méngale ko ak euh, xarala yu yees yi ba nga xam ne euh, kër gi du daanu ana yan fexe nga fas yéene jëm ci loolu. waaw ah, jërëjëf euh, donc si laajte boobu ah effectivement poste suñ ko sur le plan juridique bu dee yoon kese la ñun sax existé wuñu parce que sur le plan juridique dañu war a tëj suñu boutique yi waaw ah, amatuñu parce que voilà donc mais état bi moo ñu jàppale moo tax ñun ñëpp. dañu war a coopérer ak état parce que moo tax ba léegi ñu ñu mën a liggéey alors loolu su weesoo suñu produit traditionnel bi xam nga mooy courier loolu xarale yu bees yi dañ ko dañ ko rendre obsolète loolu mënuñu mënuñu si gagné lu bëri parce que ñun ñëpp kenn du def pratiquement courrier euh, wàññeeku na bu baax donc euh, yooyu yëpp euh, xayma nañ am na xam nañu Euh, vraiment il faut que ñu repositionné wu ñu ñu indiwaat yeneen activité yeneen relais de croissance mais activité yooyu d'abord suñu liggéey traditionnel ba léegi am na état bi waxul ne léegi amatul donc am na parce que suñu mission service public la euh, donte que dañuy perte mais ku nekk Fongolim bi suñu amee benn lettre Dakar dañ koy yóbbul ba Fongolim bi loolu mission service public la dañ koy def perte état bi mu ngi ciy jàppale ñun tamit ñu ngi liggéey pour rendre efficient loolu wax naa leen ren euh, d'ailleurs euh, du point de vue croissance euh, daanaka li ñu amoon li ñu am ren moo ëpp li ñu amoon daaw sur la même période donc ñu ngi def ay jéego mais du ñu yem foofu dañuy xool yeneen activité yu méngoo ak xarale yu bees yi pour ñu moderniser wu parce que poste daanaka on n'est pas très moderne moo tax ren ñu jënd plus de mille machines ordinateurs 1000 su renforcer suñu parc informatique automatiser suñu file d'attente yi donc euh, def euh, organiser ay concours hackathon pour indi ay xalaat yu bees ay produits yu bees donc ñu ngi liggéey et ñu ngi liggéey aussi pour am banque postale benn banque bi am ne c'est sûr pour développer suñu service financier parce que loolu aussi dafa daf ñu bloqué ñu ngi yoral nit ñi seen xaalis mais euh, xam nga sénégalais dañu am projet mais mënuñu financer kenn parce que amuñu banque euh, moo tax aussi suñu client yu bëri ñoo ngi dem donc euh, ñu ngi liggéey si en tout cas si instrument yooyu yëpp pour suqali poste. waaw oh, en tout cas suñu xoolee tey suñu besoin personnel méngawul ak suñu am-am suñu koom-koom ren soo xoolee lu ñuy liggéey par par année. à peu près 8 milliards suñu masse salariale mu ngi 18 euh, euh, milliards donc gab boobu euh, c'est-à-dire ni ñuy dundee kuy c'est comme day mel ni dañuy leb pour dund donc au-dessus de nos moyens parce que tout simplement état bi mooy ñëw à notre secours donc loolu nag à un moment donné dañuy épuiser suñu ressources yëpp donc dañu war a am benn taille bi nga xam ne moo méngoo ak suñu am-am suba suñu amee ay ressources nouvelles suñu amee mun nañu recruter mais effectivement suñu masse salariale suñu personnel ak suñu charge ak suñu produit vraiment am na fossé donc àla euh, kuleali soit tey wala suba euh, ak avec la décision de l'État seen orientation il faut ñu xoolaat mbir mi donc il faut ñu gën a réorganiser suñu ressources humaines yi waaw bu weesoo restructuration boobu ndax euh, poste ak yu ñu bëri jàpp nañu ne patrimoine la waruñu koo bàyyi mu nax saay euh, est-ce que amul yeneen pexe yoo xam ne dina gën a gaaw ngir bañ a dee. mais pexe mooy pexe pexe yu ñu wax rek pour mu bañ a dee il faut nañu liggéey pour euh, am activité yu bees yi nga xam ne daf ñuy jox développer suñu suñu activité am yeneen relais de croissance loolu la donc diversifier aussi suñu produit yi. mënuñu des rek si suñu produit yi ñu amoon donc il faut ñu ut yeneen produit yu bees yi tirer croissance suñu croissance euh, donc si loolu la ñuy liggéey et si ñu développer euh, suñu service financier ñu yóbbu ko banque ñu am euh, ay ressource supplémentaires pour mun na def face à suñu charge yi. waaw directeur am na am na li nga waxoon sànq tamit ne coow li bëri mu ngi yàq image entreprise bi te am nañu am nañu sa yenn collaborateurs yoo xam ne parfois dañuy exiger sa démission. est-ce que yow en tant que directeur yaa ngi toog benn instant xalaat ni ah est que comme coow yi man lii kii na xaaral ma démissionné. ah xam nga man dañ ma sant liggéey dañ ma jox mission te mission boobu xamoon naa ne difficulté yi bëri na ah c'est pas parce que ma dem ba si biir ma gis difficulté yi bëri na ma ma dem daw euh, surtout que euh, aw ma benn problème bu bi nga xam ne euh, personnel man. non sama liggéey laay def mun na am ñeneen ko ñeneen ñi comprendre loolu accompagnement ma wala ñu fustiger ko mais gis naa ñu bëri aussi ñu ma ci encouragé donc jàpp naa ne que maa ngi dans la la bonne voie jafe-jafe nag day am si kër surtout kër bu mel ni poste bi nga xam ne jafe-jafe kese la woon léegi heure bi pour man euh, du heure dem parce que kenn euh, problème subjectif la tout du tuumal yi nga xam ne loolu tax na nga dem parce que su amee problème dañuy wax njiit njiit njiit bi la mais sinon amul benn problème bi nga xam ne euh, day tax ma dem loolu ma dama am confiance euh, sama patron président de la république euh, je pense que loolu dafa dafa am solo aussi moom heure bu ko neexee aussi mun na ma fi jëlee loolu nag ça ne dépend pas de coow lii wala leneen moom mooy apprécier rek et donc euh, loolu la ci bëggoon wax donc waxu dem bi euh, pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. waaw euh, c'est vrai dégg naa lool ñu accusé secrétaire général ñu ne dañ ko fi dóor et effectivement altercation am na coow li amoon na ñun bi ñu paree suñu conseil moom bi mu génnee d'ailleurs ñoo doon ñoo doon jiitle après moom mu mu génn. ma dégg coow ma dégg coow xeex am mais je ma ne bon lii man lii kay c'est pas euh, xeex la woon xeex boobu nag moom gis na xam na ki mu xeexal ak ñi mu xeexal na leen dénoncer rek wax ñi diw ak diw la mais tuumal directeur général directeur général sori na loolu sori na foofu directeur général dóorul xeexul kon bu ñëwoon ne man la d'abord directement am na ñi mu gis am na ñi mu xeexal na wax ñii diw ak diw la ñu régler seen problème mais mais li ma metti mooy li ñuy xeex ci biir poste problème violence bi ci poste commencé na am ay ampleur yow maa ngi koy ñaawlu te dinañ ci jël ay mesures violence yooyu nag euh, du du xeex kese parfois verbal bi nga xam ne day démotiver personnel bi da leen di tere liggéey loolu yëpp baaxul si suñu entreprise dinañ jël ay mesures mesures yu forte ñu dañ koy appliquer aussi sans état d'âme quel que soit euh, ñi ñi kii ñi ko ñi ko sëkk loolu aussi c'est important c'est pas parce que ay syndicaliste la que kenn du leen euh, wax dara waruñu xeex si biir entreprise bi loolu ñu koy ñaawlu vraiment ah est loolu loolu am je je ne pense pas parce que fii amul gros bras amul fi benn gros bras du ñu liggéeye noonu ñu jàmm rek la ñu muta musa woote si kër gi jàmm rek la ñuy woote soxla ñu gros bras euh, pourquoi faire quoi ñun sax ñu ngi ñuy saaga tous les jours euh, feneen ak feneen euh, mais on ne se défend même pas on ne se défend même pas on multiplie ça par zéro parce que suñu mission moo ñu ëppal solo Euh, détails yi xeex yi donc man en tout cas su ma xeexee wala ñu dóor ma mu xam ki ma dóor même si quelque moo ko yónni moom d'abord lay wax moom laa koy defantel après ñu xool moom na wax ki ko yónni c'est c'est c'est loolu mooy dëgg bi vraiment c'est c'est trop facile ah vraiment lépp ñu def ko si si ginnaaw directeur général bon c'est plus facile peut-être parce que du ñu doore mais mais il faut qu'on soit juste quand même